Ndiol Babacar Tine Ndiol plaqué na ko waaw remplacé ko war ko ndombo eh, eh, Ndiol bu sana Babacar Ndiol war na ko ndombo Ndiol Babacar Tine waaw Ndiol war na ko ndombo da koy daanam déet sana eh, waaw waaw jeex na wala jeexul jeex na Ndiol Sana daan na Babacar Tine Ndondol General